macha allah macha allah ñoo ngi nii ñoom tonton Sow ñoom Daouda vraiment egsi nañ ñoo ngi dugal bagage yi. voilà mule mule yaa ngi noonu macha allah. hôtel bi dafa yaatu sax néeg bi chambre bi dafa yaatu macha allah. waaw c'est bon waay waaw macha allah bisimilah sëñ bi ki woon noonu hôtel baa ngi waaw macha allah hôtel baa ngi nii waaye euh, euh, ci Ibi waaye hôtel Ibi bi gën a yi ci Paris waaw moo nekk nii mooy hôtel bi gën a cher Ibis macha allah waaw am lool waaw waaw yéeg fi yomb yéeg fii sax problème la <laughs> waaw identifier yu wóor wala fii dugal waaw toilette yaa ngi nii toilette yaa ngi nii waaye masha Allah euh, voilà euh, néeg baa ngi nii waaw dara manqué bu waay waay masha Allah waaw kii côté bii moom it waaw waaw côté bii moom it nii fii yëpp ay hôtel yu bakkane la. waaw ay hôtel yu bakkane la fii euh, ci quatre-vingt-onze la bokk. Mhm. waaw mooy quartier yi gën a chic ci France. Mhm. macha moo nekk nii. Mhm. moom la sëñ bi gis nga kii. climatiseur la. waaw. waaye tout est informatisé. Mhm. Euh, macha allah kon nag sëñ bi. Mhm. Euh, lii moom wax dëgg yàlla xeeb nañ ko yaa ko yeyoo. macha allah macha allah euh, jërëjëf. macha allah borom faajuru naajuru ajjuma bentene bintiyaane ko di jamaane ko di damaka. borom sam ci sama ruusi macha allah. ndeysaan ndeysaan handeeɗum ka moƴƴo ka gandu ka moƴƴo ka gandu jankiniiɗo eyi ɗum noon eɗen ñagono ma allah mhm. ah, ɓural e kisal mun nañ jam si kar tuuti a inchallah ah. bismillahi eh. mi fuɗoro lalen taƴaɗomi jogoro eriganda te yankimi ha ceerno mulay mi yankimi ndeysaan bismillahi mi fuutoro mi jaara ceerna mi jokoro ceerno mulay ne yangini bismillahi mi fuutoro mi jaara ceerna mi jokoro a ah, ceerno mulay ne yangini bismillahi mi fuɗoro mi jara ceerna mi jokoro heewi gandal te yankinim a ceerno mulay ne yankinim

ceerna mi jokoro heewi gandal te yankini a ceerno mulay ne yankini a ceerno mulay ne yankini heewi gandal te yankini a ceerno mulay ne yankini a ceerno mulay ne yankini heewi gandal te yankini a ceerno mulay ne yankini ceerno mulay ne yankini bismillahi mi fuɗɗoro mi jara ceerna mi jokoro heewi eh, gandarde yankini a ceerno mulayne yankini a ceerno mulayne yankini ceerno mulayne yankini heewi gandarde yankini a ceerno mulayne yankini bismillahi mi fuɗɗoro mi jara ceerna mi jokoro heewi gandalte yankini a ceer Cerno Mulay ne yankini a Cerno Mulay ne yankini a Cerno Mulay ne yankini a Cerno Mulay ne bismillahi mi fuɗɗoro mi jaara ceernam mi jokoro heewi gandal te yankini a ceerno mulay ne yankini a ceerno mulay ne yankini ceerno mulay ne yankini a ceerno mulay ne yankini a ceerno mulay ne yankini machallah wax ceerno assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu man dañu kontaan ceerno way ni ma dengal muɓe baade makkata duwawuji mon ñaagimi jengle jidda ta ñande ñalgo altine yaadugo ngani belliɗa ñanemum ko aɗa wonde lewru min jil haɗaɗa tayino ɓe duusoɓe ñande mum gancata duusoɓe duusimo nayi kiloji ɓe tampata hay rewɓe cemmini duusugol hono worɓe ni jinneji cimmini duusugol hono yimɓe ni mawɓe sukaaɓe coftugol ɗuma jandata ceerno waynima dental julɓe faade makka da duwawuji mon ñaagiimi jangde jiddata ñame mum ko arawande lewru min jilgaadata sayino ɓe duusoɓe ñande mum gancata duusoɓe duusimo nayi kiloji ɓe tampata hayran ko cambini duusugol hono worɓe ni mawɓe sukaɓe certugol duma serdata waynima dental julɓe faadi e makkata duwawuji mon ñaagimi nden nde jiddata ñana ñalngu aldina yaadu goongane fellita ñane mhm. mum ko ara wande lewɓe min ndin haadata saayiɗo duusooɓe ñan mum gancata duusooɓe duusi mbo nayi ɓe tampata hay rewɓe cambini duusugol hono worɓe ni jinneeji cambini duusugol hono yimɓe ni jara jaba jara mulo sow illallahu لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جل جل جل لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جل جل جل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 أنا الذي ولد غير والذي وغير والد بغير والذي بعلي وجهبي والهمدي سلا تسل أجل أجي من جمدي جرجف كان ملجو نفعني من لم يكن ولدي ولا بوالد فتى مغلدي أنا الذي ولد غير ولدي وغير والد بغير بلدي بعلي وسبي والهمدي salaatu zil asilaasi mi samadi jërëjëf a ceerno mu na sow man lam yakun bi walladi wala bi walidin fada baxaladi ala alladi wulida xayra walladi wa xayra walidin bi بيادي وشافي وصمدي سنة الذي مزمدي جرجف جرم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا هو خيرا وأعظم أجرا هو خيرا وأعظم أجرا waa xayran waa jamajaran jërëjëf Thierno Moule Sow waa xayran waa jamajaran wastaghfirullah inna allaha ghafuurun rahiim jërëjëf Thierno Moule Sow wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allahi huwa xayran waa jamajaran huwa xayran waa jamajaran huwa xayran waa jam wa jaran huwa xayran waa jam wa jaran jërëjëf Thierno Moule Sow huwa xayran waa jam wa jaran huwa xayran waa jam wa jaran واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله ان الله غفور رحيم جرجف جرم وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم وزرا هو خيرا وأعظم وزرا هو خيرا وأعظم وزرا jërëjëf Thierno Moule Sow هو خيرا وأعظم وزرا واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم jërëjëf Thierno Moule Sow وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير الوارث مثلا هو خير الوارث مثلا هو خير الوارث مثلا جل جف جل ملسو هو خير الوارث مثلا واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم جرجف جرجف وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وجزاء هو خيرا وجزاء هو خيرا وجزاء jërëjëfa ceerno mu lay sow jëf suñu borom huwa xayran wa azam wa daran wastaghfirullah wastaghfirullah wastaghfirullah inna allah ghafurur rahim jërëjëfa ceerno وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأجر وأجرا هو خيرا وأجرا وعيرا وعازم جميلا جرجف شرم لسو هو خيرا وعازم جميلا جرجف شرم لسو هو خيرا وعازم جرم جرجف شرم لسو هو خيرا وعازم جرجف شرم هو خيرا وعازم جرم jërëjëf Thierno Moule Sow huwa xayran wa jërëjëf suñu borom huwa xayran wa واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله ان الله غفور رحيم jërëjëf jërëjëf Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ma sha Allah kontaan nañu trop jërëjëf da ngaa neex a sikkaral ma sha Allah ɗiɗo sikkiraaji fof Allah ne seedi wala miin foofu ko ceerno ah, gis nga kooku kooku tudd ki kii ñëwoon foofu ak soxnaam ki ñëwoon foofu nu mu tuddati ah, waa ka waa xaw ma waa kii ñëwoon foofu ak soxnaam démb waaw démb ci guddi ki nga fajoon doomam bi rek ah. Ami Diallo waaw borom këram bi def ma woo démb ne ma waaye tonton Sow yónnee ma ci sikkar yi ma yónnee ko mu ne ma yow yow foo jàngee ci kan. ma ne ko laaj ko sëñ bi. dëgg la waaw démb. démb kër nga fay ñu présentation bi. wallaay zikar yi dafa am solo dafa neex yi daf ko neex. day yëngal jinne yi wallaay wallaay dëgg la wallaay dëgg la. lu jóge ci xol ci xol lay dellu. ci xol lay dellu. macha allah vraiment ñu ngi kontaan bu baax. ci mule mule yaa ko jaajoo. vraiment bëgg nañ ma indi nañ ci hôtel bi. xam naa ne dama bëgg ñu génn doxantu def ay quelques courses. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw dem ci marché bi def quelques courses. après ñu dem barkeelu baax na baax na baax na baax na macha allah kon nag tonton Sow moo fi nekk nag Daouda Sow vraiment di nuyu taalibe yi jëwriñ yi macha allah Bakary Sonko Mule mhm. foofu Alaaji Touré mhm. jëwriñ euh, Fama Sow jëwriñ euh, Dikel Sow jëwriñ macha allah Dara Sow mhm. di nuyu ñëpp soxna ñaamu soirée Adama Mule Visini Traoré bàyyiwuñu kenn di sant bu baax di gërëm ñëpp si ngeen taalibe yi ñoo ngi may gàtte ñoo ngi may topp si nga hôtel bi ñu ma indiwaat aussi vraiment di kontaan bu baax a baax di ñaanal jàmm waaw macha amiin moom yaatu na pour ñu dugg fi sax problème wallaay problème pour ñu dugg fi daal mm-hmm. moom laaj na lu ne néeg bi yaatu na aussi wallaay ñëpp a yaatu na waaw waaw kon nag moo ngi seeg sëñ bi ah macha allah ñu doyal sëñ bi ndax sëñ bi yàlla ak yonent bi rek lay dund Mhm. waaw yàlla ak suñu borom. macha allah tàmbali nañ consultation yi fii ci Paris. waaw defe naa ne démb la ñu mhm. tàmbali consultation bi actuellement maa ngi fii ci France. ñu ngi ñu ngi mhm. ñu def consultation. su ko defee numéro téléphone yi suñu wootee dinañ leen wax fan la ñu nekk adresse bi. di am kontaan ak mbégte lool macha allah. su ko defee ñu nga tëgg rek. après ñu wallaay wallaay noonu la kon nag sëñ bi euh, moom. consultation yi tàmbaleen ñu démb mm-hmm. waaw am na ñu ñëw jot a ñëw démb waaye am na ñu bari nag mbir mi dafa leen a bett mm-hmm. ah, macha allah xam naa ne tey jii moom nañu mm-hmm. ah, dinañu bi ñu bëree bëri macha allah ndax yëf tàmbali na waaw macha allah kon nag tàmbali nañ ko bisimilahi rahmaani rahim yàlla nañ ko yeggati alhamdulilahi rabil alamin ñoo ngi fii ci hôtel yu bi macha allah amul dara lu fi manqué macha allah. hôtel bu luxe ñu ngi fii ci wetam macha allah war bi hôtel bu dégg bëccëg ñoo ngeeg sëñ bi di ko gunge. Mm-hmm. di ko sikkaral. Mm-hmm. sëñ bi bég na macha allah. Mm-hmm. waaw sëñ bi moom ah, macha allah yoonam bii moom. ah souvenir bu rëy la. macha allah mu ngi ak ah, ah, Daouda. Daouda mu le kase. moom it sëñ bi newoon na dinañ ko dugal ci daaru laahi bi. macha allah ak tonton Sow. waaw nekk ak suñu sëriñ ba borom faajuru naajuru ajjuma bente ne bintiyaane ko di caamaane ko di doom ka borom samti sa maruusi ndeysaan ku neexa neexa àndam wallaahi tam-tama ruusi moom it moom it Paris la nekk moom la ñu mm-hmm. génn ci xaadim mi ngi fi maasaallahu kon nag du ñu def rek di ko rafetlu mm-hmm. maasaallahu di ko yeggalee si kër Mm-hmm. macha allah fu ndax ci kër gi wallaahi mm-hmm. waaw mm-hmm. waaw waaw waaw tey mooy anniversaire bi wallaahi wala loolu rek waaw comme tey mooy anniversaire luuma bi passé tey mooy anniversaire bi waaw kon nag macha allah tey jii moom la sëñ bi dal di jóge ci hôtel bu taaru bële ñëwaat ci beneen hôtel boo xam ne bii presque ëpp na vingt étoiles macha allah ci Paris Mm. waaw kon nag di sant ñëpp rek di gërëm ñëpp mule mule yi Fabakary mm. Sonko gala Sow Fama Sow Dikel Sow ñoo ngi leen di nuyu mm. waaw bàyyiwuñu kenn nag waaw na ñaama soirée macha allah di la na ne ñoo ngi fek sëñ bi waaw ñëw nañu dugg nañ ci mankaat bi mi ngi nii macha allahu macha allahu euh, kon nag macha allahu di ko jekkalee rek si kër ndax mënuñoo ñàkk a si waaw bu ñuy tàmbale si kër la ñuy tàmbale waaw bu ñuy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 من خير تجدوه الله هو خيرا وأعظم أجرا هو خيرا وأعظم أجرا هو خيرا وأعظم أجرا هو خيرا وأعظم أجرا جرجف جرم هو خيرا وأعظم أجرا جرجف جرم هو خيرا وأعظم أجرا jërëjëf Thierno Moule Sow huwa xayran waajaran jërëjëf Thierno Morom huwa xayran waajaran jërëjëf Thierno Moule Sow huwa xayran waajaran jërëjëf Thierno Morom huwa xayran waajaran wastaghfirullah inna allaha gafurun rahim jërëjëf Thierno Moule Sow wa ma tuqaddimu li anfusikum من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا جميلا هو خيرا وأعظم أجرا هو خيرا وأعظم أجرا هو خيرا وأعظم أجرا هو خيرا وأعظم أجرا jërëjëf jërëjëf Thierno Moulay Sow. huwa xayran wa ajaran ajaran jërëjëf Thierno Moulay Sow. huwa xayran wa ajaran jërëjëf Thierno Moulay Sow. huwa xayran wa ajaran jërëjëf Thierno Borom. huwa xayran wa ajaran jërëjëf Thierno Moulay Sow. huwa xayran wa ajaran jërëjëf Thierno Borom. huwa xayran wa ajaran jërëjëf Thierno Moulay Sow. huwa xayran wa ajaran واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم jërëjëf jërëjëf jërëjëf وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم هو خيرا وأعظم أجرا هو خيرا وأعظم أجرا jërëjëf Thierno Moulé Sow wa xayran waasiran jërëjëf Thierno Moulé Sow wa xayran waasiran wastaghfirullah wastaghfirullah wastaghfirullah inna allaha ghafurun rahim jërëjëf Thierno Moulé Sow wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda allah هو خيرا وأجرا هو خيرا وأجرا هو خيرا وأجرا هو خيرا وأجرا هو خيرا وأجرا jërëjëf Thierno Moule Sow هو خيرا وأجرا jërëjëf Thierno Moule Sow هو خيرا وأجرا واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم جرجف جرجف وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعازم أجرا هو خيرا وعجرا أجرا هو خيرا وعجرا أجرا هو خيرا واجرا واجرا هو خيرا واجرا واجرا jërëjëf Thierno Moule Sow huwa xayran waajan wa jaran jërëjëf Thierno Moule Sow huwa xayran waajan wa jaran huwa xayran waajan wa jaran huwa xayran waajan wa jaran jërëjëf Thierno Moule Sow huwa xayran waajan wa jaran jërëjëf Thierno Moule Sow huwa xayran waajan wa jaran jërëjëf seen borom huwa xayran wa ajran jërëjëf seen muliso huwa xayran wa ajran jërëjëf seen borom huwa xayran wa ajran jërëjëf seen muliso huwa xayran wa ajran jërëjëf seen borom huwa xayran wa ajran واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم jërëjëf jërëjëf Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim na jox lii addiya macha allah addiya ah, ah, ah. na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm. kontaan ak mbégte wallaay ñoo ànd dem ci appartement boobu ngeen jëlal mhm. ñu dem jëli bagage yi ñëw ngeen gis boobu noonu mhm. Mhm. hôtel euh, ibis hôtel boobu man laa jëloon macha allah ci hôtel bi aussi dikkeel mm-hmm. moom fi ak mm-hmm. ñoom ñëpp mm-hmm. vraiment maa ngi sant suñu borom bu baax di jot sant yàlla Muhammad salaa salaam ñoom daawda macha allah am kontaante leen ñaanal bu baax jàmm ak taw féex di nuyu jëwriñ Fabakary Sonko jëwriñ Gala Sow Fama bu baax ñoom ñaama soirée vraiment di nuyu national aussi ajaratu Khadiba Khadibu vraiment saa su ne gis nga bëgg taalibe ak bëgg leen moo tax saa yu nuyoo rek wallaay mm-hmm. wallaay dëgg la wallaay dëgg la wallaay yu may nuyoo rek ma daal di leen nuyu. wallaay leen ñaanal bu baax jàmm taw tawfeex. wallaay dëgg la ci France. vraiment manqué wu ma dara maa ngi suma xaalis. Mm-hmm. waaye laalu ma ci dara. vraiment taalibe yi may taxaw mm-hmm. lu ñu bëgg lu ma bëgg rek ñoo ngi ci. vraiment di ma di ma taxaw bu baax a baax. gis ngeen gunge nañ ma maa ngi fii ci hôtel bi jërëjëf tonton Sow. vraiment jërëjëf Daouda. jërëjëf su ko defee ñu waajal mën a génn dox ay yenn course en attendant balaa muy gën a naaj vraiment macha allah mule mm-hmm. mule ca kaw ca kanam ci lu baax incha allah jërëjëf jërëjëf jaaraama kon nag ñu tëj rek